alhamdulillahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baada nabina muhammadin wa ala wa saxbihi wa man walaahum wa man tabiu bi ixsaani ila yawmi ddin mbokk yi ñu bokkal borom bi tabaraka wa taala noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm yàlla ak barkeem yërmandeem ak xewlaam suturaam yàlla na ko borom bi tabaraka wa taala wàcce seen kaw te wàcce ko seen kaw njaboot tabaarakallaahu yéen a ngi woy di ànd ak seen mbokk Abdoulaye njaay fii ci MTV Sénégal fa tabaarakallaahu émission bi ñu am ak yéen ay bis ci waxtu wii ñëw nañ di leen ko defal si fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu di nuyu sunu caméraman sa Saïd Diallo nuyu tamit Mata sunu monteuse yi moom it ñu ngi koy nuyu di ko bu baax tabaarakallaahu yéen a ngi ànd ak ñun ba tey rek ci li ci réew mi li ci réew mi nañ leen ko waxee ci jamono ju ne ci waxtu wu ne ci saa su ne ci réew mi la xewee te fii lañu koy waxtaanee tabaarakallaahu ay bis yi ñu weesu ñoo ngi waxtaan ak yéen li jëm ci li nga xamante ne mooy mbirum sëy mais rawatina jëmale ko woon ci sunu mbokku jigéen ñi doon loon moytu loo ay jikko yoo xamante ne ni fa tabaarakallaahu dañuy jàpp ni day baaxal seen say fekk du baaxal seen sëy waaye day xaawe li nga xamante ni moom mooy sutura gannaaw ba ñuy nekkee ak ñoom ci li nga xamante ne fa tabaarakallaahu ay jikko yoo xam ne dañ koy moytu ndikuloo ba nga xamante ne bu ñu ko moytoo rek seen sëy mën a jag waaye tey dañuy dikk ak yéen ci solution yi solution yi mooy lan li war jigéen ci biir këram waaw ah, li war jigéen ci biir këram loolu mooy solution yi li war jigéen ci biir këram nag mooy muy xam kuy mooy mu xam kuy boroom këram c'est important li war jigéen ci biir këram mooy mu fexe xam kuy boroom këram tey nag ci pàcc woowu lañu bëgg a dugg ak yéen waxtaan ak ci yéen ñu xool jigéen ci biir këram naka la war a doxalee ak borom këram fa tabaarakallaahu ba mu mun koo nekkal ci naaj bi moom mu nekkal ko ci kër gi ndax dama koy bari lu wax ci samay wax lu baree bari ku ko miin ci sama làmmiñ damay faral di wax naan ku bari ñépp topp la foo jëm yóbbaale ko ndax bu dara dul dara jamono ba mu lay bëgg romb na say morom yu bari romb na ñu la dàq fuuf ëppale ëpp ëppal la fuuf taar waaye nag amaana yow la ko yàlla booleel romb na ay buntu kër romb na ay jigéen yu bari ñëw ba ci yow ne la yawa ndax mbokk yi koo tëral ku ne yaa ko tëral waaye koo torox koo toroxal ku ne yaa ko tuxal kon ginnaaw nag ba mu bàyyi ñëpp topp la andi la ci biir këram li nga war njëkk def ci sa xel mooy kii dafa am yaakaar ci man dafa yaakaar ci man ni jigéen ju baax laa même su ma nekkul woon jigéen ju baax danaa fexe góor góorlu ba won ne ko fii nga ma yaakaaree foofu laa la féete c'est important loolu am solo la jigéen ñi bàyyi ci xel mooy tey benn ji benn góor fas yéenewul takk soxna mu tudd ci làmmiñam ne maa ngi dem takk soxna waaye ki may takk nii ku bon la ah bu amee ne gisaguma ko maa ngi dem takk jigéen ju bon doo ko dégg lu tax ci jamono ba muy jug dem di la labate di la takk ngir indi la ci biir këram dafa gis ci yow ab jukko yoo xam ne ni fa tabaarakallaahu doy na ko mu jàpp ni bu la jëlee ci kër indi la cib kër di nga nekk koo xam ne nag fa tabaarakallaahu yaay nekk dalluwaayam beneen gu ci topp it moo ngi yaakaar ni ëllëg liy meññee ci yéen te yàlla bu dogalee war leen ko dénk ci sëy googu muy doom di nga ko jural doom ju baax yow loolu ji yow yow jigéen dangay toog di jël loolu di ko dugal ci sa bopp di ko xalaat waaw gannaaw nag nga ne jël na ma indi ma ci biir kër gi ma nekk ci war a dikk ngir sëyal ko foofu nag la liggéey bi nekk li tax ma ne fa la liggéey bi nekk ndoxaan gi neex na waxtaan gi neex na mënoo xam sa sikk ku góor ki du la wax sa sikk ndax jamono jooju bëgg-bëggam rek lay jiital loo wax mu ne la yaay seef ndax dañuy wax ne góor ñaar mu gën a bëgg ci ndoxaan la gën a bañ cib sëy ndeysaan maam Alpha Camara yàlla yàlla yërëm ko ci moom laa ko déggee woon ñu ne ko ñan ña yan ñaar la góor gën a bëgg ci ndoxaan mu ni mooy nga di ko jege di ko ñuuxu di ko laaj mu lay wan ni may ngande gi di la jox nee na waaye nag bu yàlla dogalee ba nga ba nga sëy ci kër gi ngeen def ab diir boo yàggee di ko ñuuxu mu ne da bëgg ñuuxu waate waay nit ko xam ne rek leneen gi ci topp mooy boo baree ay laaj mu ne bari li laaj nee na loolu góor bëgg na ko lool cib ndoxaan waaye ak ko bañ mukk ak ko bañ cib sëy kon loolu ñu jéem cee bàyyi xel moo yow ku jigéen gi léegi dugg nga ci kër gi ñëw nga waaye dinga fexe ne damay fexe doon jigéen ju baax ci biir ci biir ci biir kër gi mooy la bu mu liggéey wàcc ñëw mukk damay faral di wax jigéen ñi ne seen borom kër bu mu liggéey wàcc bu dem liggéey wàcc ñëw mukk nga di ko nettalil li xew ci kër gi ci ay jafe-jafe lii xew ci kër gi ci ay xuloo wala yow li nga joteeg say wujju peccor gaak li nga joteeg ñenn ñeek li nga joteeg dëkkandoo yi bul di ko wax sa borom kër ndax boo ko waxee danga koy perturber bi danga koy jaxase ndax jóge sa bërëb liggéeyukaay ñëw cib kër wala ñibbisi loolu dalaa doy ab stress loolu dafa daf laa doy ab coona war na xam ndax indaale woo wala indaale nga wala indaale woo journée bi neex na wala neexul kooku nag boo bëggee di ko dollil na li xew ci kër gi li jot a xew ci kër gi ci journée gi nga di ko ko résuméel mel ni kuy journal bu boobaa nag yaa koy teg coono loolu nga fexe ko moytu yow jigéen juy sëy di ko nettali li paase li xew ci kër gi beneen bi ci topp mooy yow jigéen jiy sëy ci kër gi bul nettali sa borom kër mukk lu ma amul xam nga li mu loolu mooy lan ah, génn gu góor gu baax def ne saa yoo demee sa kër xarit fekk borom këram jëndal ko macha allah teraanga ak àdduna ak lu ci biir changel ko lal beeg changé ko armoire beeg télé yeeg frigo yi waaye léegi bu sa borom kër wàccee nga ne ko ah man de tey kër diw laa jóge jëkkër ji sax jëndal na ko nàngam jëkkër ji jënd di ko limal léegi léegi loolu est-ce que concerné sa borom kër concerné wu ko parce que xam nga lu tax yaa ngi koy nettalil lu mu amut te nag day tax mu jéppi la de. day tax mu jéppi la ndax day jàpp ni dañuy wax naan dàq ganaar waxaale sab soxla léegi nag day jàpp ni ak joo jamono jooju waxu waxooloo ko ni sa sa maanaam teraange bi sa xarit am de waaye yaa ngi ko bëgg a xamal ni li koy am war naa ko am nga moy ndi nga nga fexe moytu yu mel noonu beneen bi ci topp mooy bu mu liggéey wàcc ñëw mukk ngay wujjeeg moom xam nga wujjeeg sa borom kër mooy lan sa boroom kër ñëw na ci kër gi kanamam neexul bërëbu liggéeykaay ga mer na fa ñëw nga toog fi nga toog nan moo xam bu dee day ñëw di jéem a jaay dina xam ne maa ko gën a ëpp maa ko ëppi ju ko fuuf day jaay am rab waaye xamoon ni maa ko ëppi rab déedéet loolu du sa wareef jigéen du wujjeeg boroom këram ñëwal ne ko njaay jaata njaay walla jàll jéeri dikkal ak jàmm masa coona naka liggéey bi ah? ba pare nag am foo jaarle sa kàddu ne ko xam naa da nga xiif rek yow bu doo bàyyi bu xiifee di ñàngal rek ndeysaan day muuñ mu leer na ne xiif taxul mu ñàngal de mais am na lu am na journée googu lu lu ko lu ko metti ca fa mu jóge nga ne ko yow boo doo bàyyi bu xiifee di ñàngal rek tey de boo xamoon li ma la toggal ndeysaan koo teral teral ko lu tuxu mukk lu fekk toroxululoo ko kon yooyu da cee am solo mooy jigéen gi fexe nekk dalluwaay te beneen gu ci topp mooy ginnaaw ba loolu wooyee nga nekk jigéen ju set nag surtout jigéen ju set surtout jigéen ju set léeg-léeg góor ñi ñenn ñi seen xol dafay jeex ndax lan jamono ba ñuy génn seen kër di xëy layutaay yan fa bàyyi woon ci suuf bu nu wàccee fa la koy fekkaat te bàccaguñu ko weñ yi di ko biiw kër gi du xeeñ lu neex bu dee tàkkusaanu suuf jigéen dëgg ci lay pare bu paree ca waxtu woowu fa tabaarakallaahu buru balaa borom këram di wàcc fekk na mu defar li nga xamante ne moom mooy kër gi bale na ko la mu war a raxas mu raxas ko néeg ba macha allah xeeñ na cuuraay ba bu wàccee ñëw sax maanaam bu duggee ci kër gi na salaamaaleykum xet bee koy njëkk a gàttandu góor fépp fu muy teg bëtam dafa war a rafet fépp fu muy fontu bakkanam gi daa war a xeeñ lu neex nga fexe nag fexe doon jigéen ju mel noonu beneen bi ci topp mooy nga fexe di bari looy partage ak moom fexe bari looy jege sa borom kër di waxtaan ak moom parce que dafa dëgg mënta weesu sa borom kër wàcc ñëw nga war koo waxtaanal nga war a nga war koo dalal mais fu ñu la fekk yaa ngi ci whatsapp gi fu ñu la fekk yaa ngi ci whatsapp gi fu ñu la fekk yaa ngi ci whatsapp gi loolu ba kañ chaque jour ma ne leen bàyyi leen doon jéegu whatsapp yooyu nag nga fexe éviter yu mel nii nga fexe koo daw gannaaw ba nga dawee yi mel nii nag nga fexe wax dëgg yàlla di ko jege waaye lépp loo xamante ne ni mu leer na la ni bañ na ko te la mu bañ yàlla fa tabaarakallaahu lu mu bañ la ah daw ci sa kémtu laay kàttan bari na tey nga am nga am sa xarit boo xam ne ni sa boroom kër xam na ko ci koñ bi jikkoon neexu ko yaakaar naa ne sa boroom kër mi la indi ci koñ bi dem ba nga miin kenn ci koñ bi bëgg di ànd ak moom moo la gën a xam jikko yu kooku lu tax mu ne la ki ngay àndal neexuma waroo coo teg baat da ko war a da nga ko war a bàyyi mais léegi léeg nga gis ji jigéen yoo xam ne dañuy tàccu seen borom kër naan ko su ma ko naree bàyyi bàyyi la waaw ndax kii fi ma li may njariñ xamoo ko ay way magum ferme ñemee noppi te seen yéngi ci quartier yi sëyu ñu bàyyi sëyu ñu bàyyi ñu kenn mu sëy boo dof dofloo ba nu yàqu sab sëy nag nga torox kon loolu jigéen gi da koy daw waaye nag fexe nekk dalluwaay yor jikkoy suuf tàllee ku ñareet lu asamaan si taw mu naan ko doo dégg mu jàmbat moom suuf suuf lu asamaan si taw da koy naan doo dégg mukk mu jàmbat nga fexe doon jigéen joo xam ne doo bari jàmbat doo bari looy faq jëf lu sa borom kër defal nga wan ne ko li nga may defal gis naa ko lépp loo koy defal ci teraanga nga won ni sa boroom kër lii ma lay defal danga koo mérité ndax nag yaa ma fekk ca fag ma fekk jële ma fa indi ma fii ne ma kaa ñu ànd jaamu yàlla kon nag awma sa fay fexee dund ak moom ci jukko yi nga xamante ne ni moom la la sa diine fa tabaarakallaahu sant nga ànd ak moom jaamu yàlla ma ne la boo nangoo doon daal looy jur mu doon mbaxana waaye sëyee nu la neexee ne danga nga am lu la neex mënta sotti kon nag jigéen ñi lii mooy li nga xamante ne ni képp ku ci sax ci sa néegu sëy kenn du la yàqal say xalaanduuti kon nag ngeen fexe sax ci am sutura mën a muñ waaye fexe di dalal sa boroom kër bi ci ëpp mooy kanam kanam moo ci njëkk mooy fexe di belli di leeral sa kanam di ko jëmal ci sa borom kër mu xam na ni fa tabaarakallaahu même bu àndiwul dara bu ñuy xool yow na ko dalalee na nga ko teeree lépp lu mu amoon ci naqar da koy fàtte loolu nag li koy maye mooy fexe woyof ba ñu rey sa kanamu boroom kër wan ne ko yaa mi fi àndi ngir ma sëyal la dinaa la sëyal ba nga xam ne ni fa tabaarakallaahu lan ma fay àndee féetee naa la ko fa kon nag jàppale ni man seen docteur laa yéen jeeg man maay docteuru jeg ji kon du ma seen dolli toor fa tabaarakallaahu comprimé bii laa leen andil tey tegal leen ko ci marché gi ne jël leen ko ñaar ñaar suba ñaar ngoon ñaar midi képp koo ko def kenn du la yàqal say alanduti salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.